برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينام بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد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 إني أخو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي وأبدلن نحاسي يا كريم به درا وروح بذكراه على كبدي يا الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu di leen dokkeel di sant yàlla bu baax ci e, bés yi yëpp nga xamante ne e, lépp teranga lépp mbaax la lépp jege yàlla la subhaanahu wa di sant yàlla mi nga xamante ne e, def na topp wàlliwa mi di texe ñeel doomi aadama yi di mbaax ñaal leen def màggal leen ak yëkkati leen ak bëgg leen ak roy seeni jeexital di yëkkatiku waaye mu def ko it muy ton bu màgg boo xamante ni doomi aadama dana ko tono ci dundam <clears throat> ñi ngi waajal ziyaara bu màgg muy ziyaara Mawlana Seydi Ali Cissé radiallahu anhu muy nit ku ñu war di nit kuñ wara màggal di nit kuñ wara bëgg ndax kuñ bëgg la fa pey yàlla bi eh, kuñ xormal la fa pey yàlla bi waaye kuñ yëkkati la fa pey yàlla bi ku yàlla yëkkati nag ku wàññeeku rek moo koy jéem a suufeel te du tax mu suufe waaye sa suufe yow moom di ko jém a suufeel rek lay wane eh, ku am tuuti cër fa yàlla rek danga bëgg doomi aadama yëpp danga nga màggal doomi aadama yëpp da nga topp yooni nit ñu baax ñi rawatina koo xamante ne nag dafa am jagle bu wér ci yàlla ku mel ni Mawlana Seydi Ali euh, dañoo programme topp ndigal rek ngir waxtaanee ci Seydi Ali waaye Seydi lu ne rek mi ngi koy waxtaanee lu ne rek mi ngi koy waxtaanee lu ne rek mi ngi junj ay mbiram ndax lu baax luñ fi xam bokk na ci Eh, ñu ko saxal bokk na ci ñu ko yëkkati eh, waxtaanee ko ay mbaaxam nag du pour dara lu dut ngir nit ñi jàngee ci moom ndax doomi aadama bu kenn yéemut la kenn xamut kum doon nit ku ne war nga am ku la nit ku ne war nga am royteef te ku mel ni Seydi Ali dafa doy dafa doy ci loolu Oustaz eh, Barham Diop dafa musa nettali mu ne bàyyi daf ko doon melal ne barhama ngi nii mooy kii tagg boppam ndax waxtaanee moom Baye dafa gis ne oustaz toog di wax ci moom oustaz boppam lay tagg moo tax ñun wax ci Seydi Ali ci benn côté daf ñuy jafe ndax dafa mel ni suñ bopp la ñuy tagg euh, comme lu Baye doon waxoon di bind Alaaji Abdoulaye doomam di ko bind leetar wax na ko ci biir leetar bi ki may wax ak mooy ki nga xamante ne man ida wasaftuhu wasaftu nafsi bu ma ko melalee dafa mel ni sama bopp lay melal waaye loolu lépp du tere euh, mu melal ko pour ñi war a xam-xam euh, kon bu ñuy wax ci Seydi Ali ci bunt boobu la ñuy waxee waaye du buntu ne dañuy wax ci suñ maam Baay radiyallahu anhu eh, da ngay gis buy wax ci Baay Malaaj Abdoulaye euh, dana ko ràngal maqaama yi ko yàlla ràngal yëpp te gisul ne doomam mooy wax waaye dafa gis ne taalibeem mooy wax ridallahi an cheikhi وأصلي ومرشدي فقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا بغزو وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وهو قد عاش صابرا يويب يباه على جبل دفلا سرنيم لا بايم لا موكو جبل واي مو جبل نيم نيكالون تي اي فاصون جبل ولا جي خيخ مو ولا جي جانغالي مو ولا جي اج دم مكه مو bu laajee gàddaay ci yàlla mu def ko euh, bu laajee muñ mu muñ bu laajee sant mu sant bàyyi di wax ci baayam boobu nag comme ñun ñëpp am nañ droit jàngale Seydi Ali kan ngir ngir ñun ñëpp ñi gën a buuraat euh, ngir roy ko balaa wax Seydi Ali mooy kan war nañoo wax ci ziyaare ziyaare nit ñu baax ñi lu baax la euh, ñii ñëw ci ziyaare bi tamit bu kenn ñàkk fayda waaye nañ yéene ne ba ñuy jug dañuy jug pour dem ziyaare wàllu yàlla نيينا داني دم غير خيتاليكو تي يالا تي بونتو بن واليوم بوبا داني بوك تي نيغا خامتاني دنجي امي دنجي امي تخي ابو اسحاق ابراهيم التازي وخنا تي قصيده زياره ارباب التقى مرهم يبري ومفتاح ابواب الهدايه والخير ñoñ ragal yalla euh sen ziyara dafa melni pomade bo xamanteni da fay faj gomi xoli waye buntu la bo xamanteni pour mbolem yiwu la wax na yi muy amal ci doomi aadama bëgguñ cee jaar wa tuxdisu fi lqalbi alxali iradatan wa tashraxu sadran wa tansuru mazluman wa tuksibu ba mu jeex ba mu wax ne alayka biha falqawmu baaxu bi sirriha wa awsaw biha ya saaxi fi sirri waljahri ziyaare leen kon yooyu lay bijjal doomi aadama bi nit ki war naa buur ngir dem ziyaare leen waaye balaa nga leen di ziyaare na nga sellal sa yéene ndax innama al amalu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne jëf yi mi ngi aju ci yéene yi ba demee ci ibn al-Hajj ci madxal dana jàngale ne yéeneel yéene bu wér boobaa jëf ju tuuti dana la dana la doy moo tax fa zur wa ta'addab ba'da tasxiixi niyatin ta'adduba mamlukin ma al malik al xurri ziyaaral ànd ak teggin lu bàyyi doon wax ne maa ngi dem ci yenentu bi ànd ak teggin ànd ak teggin ci atayfun sara eh, tegin boobu kuy ñëw ziyaare na ànd ak moom gannaaw bi nga xamante ne wéral nga sa yéene ba pare ndax eh, wa niyatu chartun li saairi l amal bihi salaaxu wal fasaadu lil amal mbir mu nekk baaxam ak yàqoom mi ngi aju ci yéene bi bu yéene bi wéree jëf ji lum tuuti tuuti dafay baax dafay am njëriñ eh, jublu màggal leen te màggal leen yaa ngi ciy jublu màggal yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te bépp wàlliwu boo xamante ne wilaayatoom wér na ki koy ziyaare na am yéene ne moom yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam lay ziyaare loolu mooy buntu bi gën a kawe waaye yegg ci e, e, di di di di di ci yàlla fa ñoom e, ngir am say càkkuteef te dara nekku ci war ngaa taxaw ci xabru wàlliw yàlla ñaan ci xàqam sëriñ Ahmad Zarruq nettali na ne nit dafa gis yenentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko yenantu ban jëf moo gën ci jëf yi yenantu bi sallallahu alayhi wa ne ko euh, toog ci keppaaru benn wàlliw lu mel ni diit bi nga xamante ne nit ki ci lay ratt benn gàttam wala ci lay ratt gëlem mu ne mu laaj yenantu bi kuy dund wala kuy dee mu ne ko kuy dund ak kuy dee yépp a ci yem loolu dañ ci déggee maanaa ziyaara ndax ki ngay toog ci wetam mu ne da ngaa jug ñëw ziyaara si ko mm. jugee sa barab fecc fa ñëw yegsi si barabam mm. kon euh, Seydi Ali ci buntu boobu ziyaara ko lu war la mm. euh, ba tey tawassul ci moom euh, tawassul dagan na ci yenantu yi ci mursalina yi ci ñëpp nit ñu bax ñi wa sulaha ak ñu baax ñi te seen mojisa du dog bul wax ne Seydi Ali si sa gaañu na mënuma ko ziyaare moko ziare duma ci am benn njëriñ déedéet ibnu badisa waxoon na ci siniyam boobu noonu la wax ne wala tasma'an min qaasiri nafci minhum ala man kaana xayan fa daaka min altalsi fa inna shuhuda nafci yaqdi bi diddihi wala siyama walqawmu nasu ala alaksi bul bokk ci ñi nga xamante ne dañuy wax ne wàlli wi seen njëriñ yi mooy ba ñuy dund bañ xasee ba génn àddina mënatuñoo jëriñ loolu ci faar xam-xam la bokk ndax nit ñi yàgg nañoo jëriñoo ci wàllu boo xamante ne jugee na fi te teg tegtal yu mel noonu bëri na bu ma ci gën a jege rek mooy Oustaz Barham Diop nettali na ne gannaaw Baay dafa bëri bu daan laazim di jàng allahumma salli ala muhammadin wa sallim mu gis Baay Baay na ko loo yàkkamti yàkkamti sax xanaa bu njëkk bi ak bu mujj bi nga def ko salaatul fatiha kon wàllu wi yàgg nañoo ànd ak nit ñi ci seen xam-xam ci seen njëriñ te bàyyi ku liir ajam bu njëkk gi danga ci gis lool ba ko bàyyam bam ba mu xawee dem ba nekk di miir ndax miinut ndox Euh, mu ne mu gis ay góori xayb yoo xamante ne bàyyam la ci xàmmee ak Cheikh Tidiane euh, bàyyam bokk na ci li ko wax ne ko fàttewoo lu la sa mag alaaji euh, Babacar wax alaaji Babacar li mu ko waxoon mooy ne ko am naa yaakaar ne ne xam nga ne sax baay mi ngi ànd ak yow ci tukki bi yëpp yooyu ay ay xar baax la yoo xamante ni du luñ aado waaye ku ko weddi dafa mel ni da ngaa weddi ne yàlla mën tut te yàlla ngi mën kon ziare lu baax la ku ñëw ziare Seydi Ali na nga ñaan ci xàqam yàlla fajal la say aajo Eh, eh, borom xam-xam yi gën noon ibnu arafa ñoom ñëpp yaatal nañ ci lool eh, bi xaqi hada saalix faal li kada tawassulan bihi ila mawla kada maarufun alkurxiyu jaizun xasan ladayhi mithlu shaadili abil xasan ñoom ñëpp imam shaadili gën noon ci sharxa xalil ñoom ñëpp yaxal nañ ne loolu dara nekku ci te boo ko ñaanee dañ ciy gis say ajo kon buntu ziyaare lu ubbeeku la rawatina ci ku mel ni Mawlana Seydi Ali zur man tuhibu wa in baudat bika daaru وحال من دونه حجب وأستار لا يمنعنك البعد عن زيارته إن المحب liman yuhibbu zawaaru kon buntu ziyaare bi ubbeeku na ci ñu bëgg ñëpp ku bëgg nag amul dara lu la mën a teree dem sa soppe saa yoo gisee yoon rek da nga dem bu dee waxtaan ci dund Mawlana Seydi Ali loolu dañ koy wax ngir bégal suñ bopp war nañ di waxtaanee seen baax baax waxtaanee seeni jaar-jaar ndax waxtaan boobu saafara la ñeel suñ jàngaro xol yi te dafa mel ni seen waxtaanee leen dafa mel ni sàngara boo xamante ne ku ci naan rek da nga mandi te mandi bi doo ci am benn bakkaar sukaara bila ithmin wa gawlin fa yàlla lahum safa waxtuhum wal mulku kaana kabira te uh, waxtaanee nit ñu baax ñi lu baax la boo gisee bàyyi doon sawarloo taalibe bi nañu waxtaanee Cheikh Tidiane rawatina ci weeru koor yi ñuy jëlee ci waxtaanee ko la ndax yàlla yàgg naa yare ci ay xikaaya nettalil diw ne diw nuñ la doon dundee rek nga jaar fa uh, nga jaar fa am أم نمبل سدن نجر راي بينك يا راي أه، أه، اذكر حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا أه، كان يتي وقت إذا هو هنا تدل وقتاني ننيو باغني فاتلي كلين نخ فاتلي كلين دفا بوكو تي سببين خمانتيني دفا اندي يرمان دي يالا دي واتي Euh, bu dee ñi ngi dund teewal seeni jotaay ndax dañ ci dañ ci jëriñu bàyyi waxoon nañu ko bu yàgg ci roxul adab wa qad tafuuzu minhu bil adwa wa hi thabitatun inda rijali fantabihi euh, amaana sax mu wàll ci xaalaam bu kawee boobu noonu mooy wàllu buy dund bi euh, waxdur majalisahum da nga am ci seen barke buñ demee ba fàddu tamit ziyaaral seen xabru ndax bokk na ci barab yi nga xamante ne yërmande yàlla dafay wàcc moo tax ziyaaratul quburi mustahabba li taxsil al izati wal baraka hmm. la Cheikh Hassan waxoon euh, nañ ziyaare xabru yi loolu luñ sopp la ngir am euh, waaru ci yàlla waaye ngir jëlee barke ci ñi nga xamante ne ñoo fa tëddee rawatina la daa quburi saalihina rawatina nit ñu baax ñi te Seydi Ali dëgg-dëgg ci nit ñu baax ñooñ la bokk euh, ci nit ñu kawe ñooñ la bokk ci nit ñu yelloo ñi waxtaanee leen ci lañ bokk Euh, damay wax ne Seydi Ali dafa juddu rek am pour nekk imam ci faydu bi hmm. dafa am rek ngir nekk taalibe bu baax dafa am rek ngir nekk bunt pour faydatul kubra te ku jaar ci dundam da nga xam ne loolu lépp lu wér la bu dee ci juddu moom mi ngi juddu mille cent vingt ci ci gàddaay gi euh, bokk na ci li mu ko yaxalee moom ne moo tolloog at shakara sant na ndax loolu xam-xam la boo xamante ne Seydi Ali da ci amoon may-may euh, at yi mu indi ko ci benn jumla arabiya boo xamante ne euh, dafay am euh, dañ dañ ciy irfaanoo lu rafet te buñ duggee ci waxtaan bi tuuti dañ ko xam ànd ak ne bëgguñ cee guddal euh, mu tolloog mille trois cent mille neuf cent cinq wala mille neuf cent six mu at boo xamante ne Serigne Serigne Omar Gueye indi na ne at bu bëri woon taw la at bu naatoon la daal te boo xoolee ci taarix lu bëri nit ñu màgg ñi at yi ñuy juddu dafay naat wala at bi ñëpp ñuy juddu ñëpp ay góor la ñuy doon ci lu gën a bëri loolu mooy ay ndimbal leen yàlla di waajalee pour ñu nekk fi mu judd ci diggante ay baay yu baax euh, yaay ju baax Seyd al euh, nga xamante ne boroom xam-xam la woon bu màgg doon taalibe ci alxaaji Abdullahi al Kabir euh, man gis naa sax benn bindam boo xamante ne moo bind réer na ma waaye ci mujj gi li ma ci fàttaliku mu ngi bind ne wa katabahu tilmidu sagir li cheikhihi al Kabir bind bii de ko bind mooy taalibi bu ndaw bi bindal ko sëriñam bu màgg bi mooy alxaaj abdullahi seen seen seen seen relation nekkul lu bees euh, lu yàgg la kon Seydi Ali du bees ci kër gi waaye mbir mi ay baayam ñoo ci jiitu euh, Seydi Xasan ñëpp xam nañ taarixam ak Seydi Ali jaruñu ci jaaraat imaam Xasan nettali na ko nettali na nu Seydi Ali ñëwee ci dëkk bi ci histoire yu guddi yoo xamante ni euh, yaa ànd ak ne wax waxaat dara nekku ci waaye comme ñëpp xam nañ ko mun nañ koo passé ñi amoon alaaka bu rafet ba boo xoolee xasida bàyyi bi mu wax ne ma baalu hada al qalbi ma zajahu al xayru nga xamante ne mi ngi ci marché maami Seydi Ali bàyyi Seydi Ali ak maamam da nga ci gis Seydi al Xasan nu mu tolloon ci màggaay bàyyi wax na ci baytu bu rafet boo xamante ne keroog rek maa ngi ci waxtaan ak Serigne Aliou di wax ne wama ka wama kuntu wama kuntu ahju qabla mawtika annani ara ara badran fi turaabi lahu qabru di wax ci Seydi Xasan ne ko njëkk yow musuma njortu ne danaa fekk weer buñ suul ci biir suuf nga xam ne ko kuñ doon jubo kuñ doon jumoo ci xam-xam Seydi Ali jàng alquran ba mokkal ko comme ni ko nit ñu baax ñi defee euh, ci ci maamam boobu nga xamante ne histoire tamit nettali yàgg nañ ko nettali imam Xasan nettali na ko ne euh, maa ngi sonn ba mokkal alquran waaye benn góor borom kaala dana ñëw nga bàyyi ma romb fekk na bàyyi def yàlla daf koo bind ngir borom kaala googu moo tax keneen keneen mënut a jëriñoo wërsëgi jàmbur say daal yi wërsëgi bàyyi la woon moo tax bàyyi rek ko mën a jëriñoo mu ñëw jàng ci bàyyi ba am xam-xam eh, yegg ci xam-xam dayoo bu kenn yeggut eh, Oustaz Barham Ñang danay wax ci benn xasidaam ne xabaahu abu isxaaqa bi eh, kasaahu abu isxaaqa bil ilmi wattuqaa thiyaaban min ki ko ràngal mbalaani maarifa ak mbalaani xam mooy abu isxaaqa ci xam-xam ak ci ragal yàlla la mayee Seydi Ali ba nekk boroom xam-xam boo xamante ni ku mat la ci xam-xam te matam ci xam-xam euh, euh, bàyyi ci boppam moo ko seede xam nga da gis bu ñuy waxtaanee Seydi Ali lu bëri dañuy nettali euh, bay naa ci leetar bàyyi ci leetar ndax sëriñam moo ko gën a xam te li ñuy wax lañ gën a óolu moo tax ci leetar rek la ñuy mujj jàngal ko mu am xam-xam ba nga xam ne bàyyi saa yu bind dana ko seedeel xam-xam. dana ko seedeel xam-xam bo deme ci rihla rixla konakiriya danga gis muy wax nasr min allah wa fatxun yaqrubu fihi wa tariq man yuraqibu axraja da tariq li ali fa huwa la amri kasmihi ali id huwa aalimun wa hu taqiyu bal qad nashaahu kada waliyu huwa sinwi wa kadaka umaru mimman bihim hada zamanu yafxaru mu ne at bi nga xamante ne ci laay tukki nii mooy tolloog min allahi wa fatxun qarib Euh, Seydi Ali noonu la daan génnee noonu la daan génnee yi ci wax yi ne ko tarix bi nag ki ma ko génneel mooy Seydi Ali Cissé euh, te euh, moom dafa mel ni turam rek mu ne Seydi Ali dafa mel ni turam Ali la rek dafa dafa kawe comme turam fa huwa la amri kasmihi Ali xam nga mënoon naa wax rek mag dañuy wax na mag bu waxee rek dëgg la mag bu demee ba waat nag xam ne lu muy wax noonu daf koy gën a féddali dëggoom mu ne mi ngi gën ci dundam ne Seydi Ali comme turam la rek ku kawe la id huwa aalimun ndaxte boroom xam-xam la wa huwa nit ku ragal yàlla waaye li am sax mooy ne dafa sosu rek te fekke ne boobu wàlliw la ci wàllu yàlla lii yëpp sëriñam moo koy seddal borom xam-xam la بيجنا شيء خم خم دايو بو خم تاني جاي يجون شيء أستاذ برامج يعني بتعرف واحد بين خسر دامنا علي على بالمجد والعلم والتقى جميع بدور العلم في النط جميع بدور العلم في النفع والنصح علي كوينا شيء خم خم أكتي تران أكتي رجل يلا ويرو خم خم يب شيء شيء جرينة أكتي لاي بيرنجري يلا تمام سيدي علي شو بهم دمنا بتشي بنتو تحدث بالنعم دي وحنا دي وحنا علوم كبار القومي علوم كبار القوم من قبل كالشكل بنسبة ما عندي من الكنز والذخري من غاني ماغ ني تود شي ولايه اقطاب الولايه ني تود دي واخ سين خام خام بو نتي لي امي اك لي ما امي دا ملني لي امي بن تومب لا شي لي ما امي وات بن بن ماسك لا شي لي ما امي مان لي ما خام شي خام خام بو نتي يينن غور يالله دا ملني مان لي ما امي ييب بن ماسك لا نجي جيل نيوم لول لا نين سيدل لي ديس ييب مان ماكو مو لول فم كو جيلي جيلي كو لودو شي مولانا شيخ ابراهيم te bàyyi loolu la waxoon ne moom ay nitam yim pare ci ñoom euh, biha faaqa aqtaab albariyati lil baydu waxoon nañ ne ay taalibeem euh, euh, xutbu yi gën a màgg moom bu nenam rek na leen na leen na leen na leen na leen sut te xaal boobu la Seydi Ali doon dundee fi ma toll ci xam-xam gaa ñi gisuñ ko te bàyyi wax na ko leetar boo xamante ne mi ngi koy bind ci ñàmmee di ko wax Seydi Ali خمنتني نيب خمنا نكو إلى حضرة عيني وثاني وجودي بالقائم مقام عند وجودي وفقري الحاج علي سيسي الطائف ديكو دقل البيت ابن بابا يتموم طائفة من صحبه لو اجتمع أقطاب أمة النبي المتبع ما وزنوا شعرة من فرد منهم فكيف بالإمام الفردي تفكن الجنجيو يب سيد علي سيسي لكلون جوخ ndax bàyyi man damay wax sama dégg-dégg la du force ku nekk jël ko ba muy wax ne wa saaqa rijaal alxayri id yaqsuduunaha wa alhama sahbi zawqa kulli raqaiqi maanaam lu tax mu teg ci aliyin dafa bëgg a wane ne misaale taalibeem ni ali Cissé mi lay mel ne aliyul xadimi xaazinu sirri kaatibi bi tazyini madxi qad ala kulla faiqi xam nga dem ba sa sëriñ ne tagg la ci yow daal mooy ne képp ku kawe bañ na kawe na bu xoolee ci kawam yow la fay gis dëgg-dëgg mooy ne yow yaa ngi ci njolaxtan bi mu jàng am xam-xam bàyyi ko seedeel waxu taqiyu ba pare sosu nekk nekk wàllu yàlla yàlla dajale ci moom li muy dajale ci mag ñëpp ba nga xam ne eh, ñim nekkaloon ci boppam ci gaañu baax ñi ñoo ko njëkk a wekk ñoo ko njëkk a nangul li bàyyi nangu ci moom da nga fekk eh, maanaam Tidiane Ousmane ci Nigéria eh, xasidaam bi nga xamante ne mi ngi ci ànd ak bàyyi ci aj ba muy tudd te aj Seydi Ali woon ci aj gi dem na ba yegg ba ci Seydi Ali mu wax ne wa thamma aliyun siise xaazinu sirrihi wa baabu fuyudaati alfaridi waziru mbooloo mi may tudd de am na ko ci tudd Serigne Aliou Cissé nga xamante ni mooy dencuwaay mbóoti sëriñ bi waaye mooy euh, buntu faydu bi mooy mooy dafa mel ni mooy premier ministre ci faydu bi ndax euh, fa la tolloon ba nga xam ne bàyyi da daan wax ne Seydi Ali bu tukkee comme Bachir Absos ni mu ko doon waxee kii mooy ki nga xamante ne bu tukkee duñ tontu leetar duñ duñ yeewi taalibe euh, ba mu jeex nga xam fi mu taxawoon moo tax kenn ci mag ñi daan na wax ne ci Mauritanie ne Seydi Ali bu njëkkoon a bàyyi gaañu bàyyi danañ am problème ndax Seydi Ali yi doon taxawee yëpp ñoom xamuñ koy taxawee ndax nit koo xamante ne mooy xëy di seeti eh, malade mooy tudd ngénte yi mooy maye sëy mooy jiite ci jumaa ji mooy jàngale ci dars te ànd ak loolu lépp sëriñ bi ne ma ne ma Ali dafa réglé Seydi Ali dafa correct mu ne eh, lépp lim daan def mi daan feebar comme nit ñi waaye mosoo dégg ñu ne tey Seydi Ali demu ci jumaa ji ndax dafa feebar te matut semaine wala ci ñaari semaine ci gannaaw rek toog naag Cheikh Ibrahima Wade mu may nettaliwaat même xista bi dima wax ne eh, tey say daal yi toogu ci wirdu bi wala tey say daal yi dema si jumaa ngi ngir ne dafa feebar loolu kenn mus kenn musu koo gis bàyyi moo ko yar def ci moom xam-xam eh, tarbiye mu xam yàlla ba nekk sax ci xandi yu gën a mag yi nga xamante ne ñooy enu maarifa eh, Mouhamadul Misri wax na ci moom ci benn tukki boo xamante ne tukki mag bàyyi la ba muy tudd Seydi Uh, uh, di wax ne wa sayidi aliyu siise ibn alxasan baxrul ulumi ak sayidi ali siise mi nga xamante ni mooy géeju xeetu xam xam yàlla ak marifa yu rafet yi euh, la yàlla dajale woon ci moom sana laaj sayidi ali ndax euh, sa bayi wàdd ndax ndax sayidi ali daan na toog nii rek ci mbooloo di waxtaane waxtaane maarifa mu ne ma kaana kattaaman dafa mu daan nëbbee mbuur dafa jéggi mu ne yegg na sax buñ toogaan ci bayal bi yenn saa yi mu génn dem toog ak mag ñi ci bayal bi bu ñu wax ba jël dugg ci wàllu maarifa rek mu jug dem yoonam ndax sëriñam lay roy ci loolu ndax bàyyi gis naa benn lettre euh, bu muy bind euh, sëriñ Ousmane Ndiaye di ko wax ne ko mbiram maarifa moom bokkul ci li may waxee ci kaw duma ci waxee lu dul ci junj boo xamante ne junj bu sew la ku mënta dégg doo ci yegg ku mënta ku mënta dégg doo ci yegg noonu la leen yaree moo tax ñoomit ku ñuy wax ak ci junj lañ la waxee ci junj boobu boo déggoo rek ñu xam ne yow xamu waaye bu dee mbir mi dañ koy war a def ba fàngaaral waa ñëpp a ci yem waa fekkee affaire bi téere la bu ñuy jàng nañu bisuñ téere yi ñu jàngat comme mbir mi fekkuñ ko woon ci téere duñ dem ba tey ñu koy defaat ci téere ba tey du mbiram téere lakinnahu bi duni dawqin ma duri wa dawqu yugni fihi an loo xamante ne ay baata koy firi bu doon ay baata koy firi ñi dàq araab ñoo koy xam bu doon ay wax a koy def ñi dàq wax ñoo koy mën comme mbir mi du du baat yu rafet du ay wax waaye ay yëg-yëg la yoo xamante ne nit a ngi ciy yegg ànd ak ne dana ak am foo fu mu yegg foo xamante ne nit ak nit danañ ci wax Muhammadu Nahwi bind na bàyyi leetar ci benn masala bu mu yegg ci maarifa ba leeraloo bàyyi na ko dama cee kontaan kontaan boo xamante ne bu ma bañutoon keneen liir ko di dund sa xaal bi te yeggu ci dama koy tasaare nit ñi xool ko ak yu demee noonu Seydi noonu la doon dundee yegg ci xam boobu waaye yegg ci mbëggee bàyyi foo xamante ni euh, euh, nit musu faa yegg ndax lim jëriñoo yëpp ci buntu dëggu ak mbëggeel la ko amee wax na ci benn xasidaam ne euh, tuddee Baye Salma comme ni ko woykat yi di defee ne junintu fi xubbi Salma daaima almalaqi wa bittu daa walahin xaaraana fi xalaqi mbëggeel Salma moo ma dofloo ma ma fanaan daal ci ci ci mbëggeel gu tar ak ak ak ak ngelmande di tagg Baye di wax na liinul arikati jamcun la nadira lahu wa jaamicun kulla wasin faiqin aniq mu ne bàyyi ku nooy bindere la xadis yi yonent bi sallallahu alayhi dafa am dafa nooy ba nga xamante ne boo ko gisee fu sori mun nga koo ragal waaye boo jaxasoo moom doo doo ko bëgg a teg moom mu ne dafa dajale lép lu tàqalikoo woon ci gaañ mu ne amul maas xam nga bu la neexee nga toog ne sama sëriñ amul maas waaye sama sëriñ amul maas soo paree di teg ay dalil yoo xamante ne kenn mënu koo teg loolu mooy bu dëgg waye xam nga tok sa pench rek na ya fi raw te ak say talib rek fa nek xam nga ñëpp dañuy dañuy tàccu rek waye ma fi raw nga waxe ko fo xamanteni ni fa nek duñ say supporter ba pare nga génn fa ci jàmm bu moy raw bu deug bi wa jami'un kulla wasfin faiqin aniq bépp jiko bo xamanteni tag nañ ko mu kawé rek Seydi Ali mu ne Seydi Ali mu ne serignam dajale nako mu ne moy nurul uyuuni wa mir'atu dhawati wa man fi xubbihi yahtadi al-insanu fi lgasaqi in kunta dha hujbin daa hujbin faqsid marabi'ahu da bi sidqi yarfud kama yunjika min tabaqi mu ne mooy leeru bët yi xam nga bët rek gisut boo duggee boo desee ak lëndam sa bët yaa ngi fa waaye lu ñuul rek ngay gis lu lay gis loo mooy lampe bi lampe di tax nit ñi gis mu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim wa miraatu zawaati nit ñi fi ñuy seetoo ba gis seen bopp xam ñoom liñ doon dëgg-dëgg mooy Mawlana Cheikh Ibrahim waaye mooy ki nga xamante bëgg ko rek ci leen nit ki mën a juboo ci heure yi bu nekkee ci digg landam mm. mu ne boo dee ay xijaaba la sonal ay kiiraay sa digganteeg sa borom mm. nga bëgg kiiraay yooyu dañ mm. amoo benn buntu bu dul utal dë dëggu rek nga ñëw ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim ndax boo ñëwee rek nga jot say càkkuteef euh, te bay waxoon na ko ne euh, kenn jubluwuma tey lu dul ne am na càkkuteefam ci yàlla subhanahu wa taala sawaaun izukraanu والنسوان سواء الصعلوك والسلطان لو شئت عم فيضه البسيط وأدركوا أسراره المحيطة kenn du ma jublu lu xam ne yàlla góor ak jigéen mag ak ndaw buur ak baadoo la lu ko xam yàlla boobu boo ko bëggee am nag da ngay ñëw ànd ak ànd ak dëggu bi nga xamante ne Seydi Ali moom la lay wax bëgg sëriñam waaye xidmaal ko ba Seydi Ali daan na liggéey ci tool yi ba daanu xam dañ koy yëkkati ñëw ñu ne kan la ñu sëriñ Aliou bayina na len na le amna talibé yo xamné tay buñu xamone ci tolu sëriñ sëriñ bang fa ñu ne bi mu éw ñu ne ko sëriñ bi da wax ba nga xamé nañ la tegee ne rek mu ba sëñ bi na danaa sëñ bi respecté wu dundam bi waye xam sa sëriñ motax tax loolu lépp du la dérangé moo mu ne daaba qalbi min ajlihi id tabadda baladul baladul fard qudwati wa raisi di wax ci bay ne فهو عبد الإله ilahi إن ذا كعبة المحاسن والأنوار وهو الغياث ذو التنفيس طوض علم وكيمياء وحياء جنة القلب بغيتي وأنيسي قد هدانا ونحن في عالم الذر وصرنا من بعده كالشموس سيدي علي موني آه، خيول بيغا خمنتني يلا جام ييب لاكو جاغريل موي مولانا شيخ ابراهيم موتاخ بعد ما دان واخنا توب بن توب باي دو خيل مو ري بني يلا ماي واي خيول لا بني يلا ديفال ناخ يلا بوكو نيهون ني نيو با ديم باي دورا نيو ولا مو نيو با ني دورا نيو ولا ني بوخ موم جامونو ني ويديكو moo tax Abdullah ibn Sayyid dafa wax wax bu mel noon boo xamante ne da xam ne dëggay dajee rek mu ne ahmadullah id baraani bi dahrin anta fihi mubashiru limdaadi lam yuqaddim wa yu yuaxir wujudi an layaali l isaafi wal isaadi mu ne maa ngi sant yàlla bi nga xamante ne ba ma sosee ma sosu si jamono joo xamante ne kii yore mbooleem tëbb yi di tëbb gaañu mooy yow Cheikh Ibrahim yàlla jiitalu ma te mujj ma damaa ñëw bokk ak yow jamono xam nga wax boobu wax waaye kee tamit sentiral na ko boppam ngir na dëgg du changé moo tax si daal mu ne mooy xéewal bi yàlla jagleel ñëpp mooy ki leen tëbb ñoom ñëpp ñu xam ko ñàkk koo xam mu ne kooku noonu nag nga xamante ne mooy jaamu yàlla bi dëgg-dëgg mooy xéewalu yàlla bi mooy ki nga xamante ne moom lañ jublu ci bépp mbaax man mooy sama wéttal waaye bàyyi tamit noonu la ko jàppaleen ne Seydi Ali mooy wéttalam ndax am na benn leetar bu mu koy wax ne ko eh, di wax ne xadrata waladina wa qurrata aynina al allaama al aarif billah al eh, allaama al aarif billah أنيس الروح وشفاء الكبد المجروح آه، حامل السر وصاحب الأمر الحاج علي سيسا حفظه الله ورعاه ما بن الله تربيتي سما دوم بو باخ بي آه، كيغا خامتاني موي سيرال سما بوت يعني سما خول سي كولاي سيدي آه، كيغا خامتاني دا فا جيغي دايو سي خام خام كيغا خامتاني دا فا خام يالا با مات كيغا خامتاني موي كي ينوم بوت بي في سي مدينه واي مير مي غا خامني ميرام لا nga xamantene waaye sama xol bu nekk bu amee gom moo koy faj alxaaji ali Cissé te di ko wax ne ko mbir mi mbir sa mbir la Cheikh Tidiane yaa ko doon bii jamono te bàyyi fi loolu wax ju xóot la bi ñu war a jàngat te du benn yoon la ko ko wax gis nga boo demee ba ci Conakry baay ci tukkeem bi bam dajeeg euh, Baye Ibou Niang bam jox ko leetar bu jugee ci Seydi Ali ba muy melal Seydi Ali dangay ngay dégg lu wax dafa ali tirsan min ahli sirri wa naibi fi masjidi wa amri مضمونه التبشير والتشويق في ضمنه توجع حقيق أكتب واردا له هنا أتى من قال ما قيل له فما عتى إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال ومجح dajeeg nag alaaji Ibu Ñang mi nga xamante ni ku jeex ci mbëggeel la yàgg naa leen nettal xisam ba ko doomam bi xojee ne ko bàyyi xam nga ne bàyyi la ma gënal mu ne ko toogal loolu laa doon xaar ci yow euh, ku jeex ci bàyyi la mu ne jox na ma leetar bu jugee ki nga xamante ni mooy sama ñooñi sama mbóot ki yore sama mbóot muy Seydi Ali Cissé jox na ma lettre bu jugee ci ki ma uutal ci sama jumaa yi sama gannaaw waaye jox na ma mbóot mu jugee ki nga xamante ne wa naibi fi masjidi wa amri sama mbir mii ki ma ciy wuutal bu ma fi nekkul muy Seydi Ali Cissé nettali nag bi li ci nekk euh, Seydi Ali mi ngi méttitlu mi ngi wane nammeel waaye wax na ma wax boo xamante ni maa ngi koy nettaliwaat fii te ku wax daal ku nettali liñ la wax Euh, jàddoo xiyaas jàddoo yoon ci la indi wax boobu nga xamante ne Seydi Ali moo ko gis mooy mu bàyyi képp ku ko xidmaan rek dana am ay càkkuteefam euh, ci àddina ak alaxira bam bam jeex bayti ñëpp moo ko nañ ko indi la dina xadam mooy euh, kon noonu la toloon ci Mawlana Cheikh Ibrahim moom ni wax ne bàyyi mooy wéttalam waaye bàyyi tamit di wax ne Seydi Ali mooy wéttalam Seydi Ali di wax ne qad hadaana wa nahnu fi aalami zarri du tey ba nekk bala xabla tashtiit lañuy la ñuy jubal ndax fa yàlla boole woon suñ mbir ak mbir ak bàyyi hmm. bañ demee ba tashtiit am mbir yi tàqaliko liy doon doon liy nit di nit li euh, ba mu jeex euh, ñu ëlbatikuwaat ñëw àndaa àndaat moom ba tey hmm. wa nax wa sirna min baadihi ka shumuusi waaye ci gannaawam dañoo mujj mel ni ki ay jant ndax sëriñ bu la yar sa munoo màgg ko mel ni motu sëriñ waaye kii daf koo yar ba mu ba nga xam ne bu koy bind xam kan mooy sëriñ bi fi ne lu sëriñ bi waxoon ne sëñ yaxaa def ko nettali ne dafa mos a tombeeg dajeeg benn naar ci néeg bàyyi rek naar bi nako ko aha nag yéen ñaa kan mooy sëriñ bi yow yaay sëriñ wala moom mooy sëriñ donc sëñ yaxaa ne ko dafa tiit ba mënut tontu mu jug génn sàkku ñaan jug génn naar bi topp ko rek rëkku ko ne ko doo ma tontu ci li ma la laaj yow bàyyi kuy sëriñ bi yow yaay sëriñ wala mooy sëriñ bi mu ne waxu ko dara mu ne ko doomi soxna bu jàngut dafay sañ doomi soxna bu jàngut dafay sañ Seydi Ali bu bàyyi di bind leesar jëm ci moom boo xamut xàmmewoo ràññewoo da nga dem ba ne kan mooy sëriñ bi ndax dana ko wax ba ne ko fi mu ne yow yaay xalifa Cheikh Tidiane te na leesar bu koy wax ne ko xaamili sirri cheikh bi madina ci Kaolack madina Kaolack moom ku fi enu mbuur Cheikh Tidiane wi kenn la mooy yow boobaa ana bay te Seydi Ali kenn mënu koo génnee ci bay lu sëñ Maaxee doon wax ne eh, bu taxutoon ak bay kuy Seydi Ali bu taxutoon Seydi Ali kuy bay il faut nga am ci dégg-dégg bu sori Euh, saani wujud yi yooyu yëpp duñ ci nekk di xuus di xam waaye ñi xam moom danañ continuer di xam euh, liñ mën a wax ñëpp danañ ko wax ñëpp tamit ñëpp dégg ko bàyyi noonu la ko yaree euh, dénk ko ay mbiram dénk ko ay liggéeyam mu yaru bay yare mu xam bay xamle dajale jikko nit ñu baax ñëpp mu nekk ci moom waaye mu amaag mu mu mu sëriñ bi wegeel boo xamante ne kenn xamul nu mu baada mu ne dafa Seydi dafa mos a dem tool tawte ci yoon bi ba mu mu feebar alaaji Omar Diagne eh, keneen ma fàtte turam ñoo ko dimbale ba mu ñëw mu tëdd néegam mu ne bàyyi jaar fa heure yi wasifa pour seeti ko balaa timis mu ne fekkee na Seydi Aliou ngi tëdd ci kaw lal bi eh, am kuñ naan mam dem Demba Thiam di ko bësal bañ ne ko Serigne Baye ñëw mu ne ba mu weqee mam dem ba la dali rek jug taxaw mel ni dara jotu ko woon ci sensi la damay fàttali ko bayt abi nuwaas bi mu wax ne marid al xabibu fa zurtuhu fa maridtu fa maridtu min nadari ilayhi shufiya al xabibu fa zaarani fa shufitu min nadari ilayhi wala lu demee noonu marid al xabibu fa udtuhu fa maridtu min xawfi alayhi sama soppe bi dafa feebar ma seeti ko gis ni mu feebaree ma tiit ci ba feebaraale soppe bi tane ñëwaat seet si ma ma xool ko rek tane bàyyi Seydi Ali loolu loo ko dal keroog dafa bëgg sëriñ ba nga xamante ne fekk na ko ci feebar gis ko bu ko gis mu tane mu ne waaye bàyyi na ko tey moom bul ñëw wasifa toogal nga noppalu mu ne bàyyi dem man Seydou ne ah man de tey xaw ma nu may def mënumaa ñàkk wasifa ji te mënumaa teggi ndigalu sëriñ bi mu ne waaye danaa fexe nëbbatu ko ba bëtu zaahiram yi du ma gis est-ce que dégg nga wax ci danaa fexe nëbbatu ko ba bëtu zaahiram yi du ma gis mu ne mu dox nank ut fu mu làqatu ci jumaa ji wasifa ba wasifa bi jóge rek mu gaaw delluwaat neenam waaye waxul ne bàyyi du ma gisee bëtu zaahiram yi du ma gis te loolu ñu xamul daal duñ duñu xam waaye ñu xamul moom danañ xam kii ki muy wax kan la kon fa la ko bàyyi tolloon mu mu mu mu màggal ko respecté ay mbiram waaye bàyyi yar ko ba mu yegg ci mat ba mu yegg ci mat mu bàyyi ko muy doxal gërëm ko ci léppam hmm. dénk ko léppam óolu ko ci léppam ndax amna ben tukem bay mi ngi wax ne ko wa taraktu sayyidi Ali sisi naiban anni wa qaiman maqami fi kulli shay min dinin wa dunyan wa ahlin wa malin wa usi ahmad wal walxaaj an yusa'i ahmad wa shaykh an yusa'idahu wa yattabi'a tariqa mona ma ngi tukki aj sama ajal fuk ak ñet bayina fi sayyidi Ali sisi nak mu wutuma taxaw sama place ci lépp lu jëm ci diine ji moom laa fi bàyyi hmm. lu jëm ci njaboot gi moom laa fi bàyyi hmm. lu jëm ci alal moom laa fi bàyyi lu jëm ci wàllu àddina tamit moom laa ci bàyyi maa ngi dénk sama ñaari doom yi des ak moom ci mag ñi papa Cheikh ak euh, euh, sëriñ Daam ñi topp ko te dimbale ko ci li nekk waaye li ma gën a neex ci lettre mooy bàyyi dafa dem ba lettre bi di waaj jeex mu ne laa utilul maqaala fa Seydi Ali Cissé yughni fi kulli shay jarul may guddal wax Seydi Ali doy na ci lépp xam nga kooku mooy bëkk neeg dëgg ku dem ba yegg ci xamal sëriñ bi li mu war a def sa sëñ bi waxagu xam nga jarul may guddal wax ji Seydi Ali doy na ci lépp mooy ne mbir mu taxaw ci kanam moom rek bu ma fi nekkoon li ma ci war a def bu ma fi nekkute moom noonu rek la ciy def du ci yokk du ci wàññ kooku xam nga óolu nga ko waaye defar nga ko ba xam la it ndax kuy ànd ak nit war nga koo xam ba xam ne bu fàddoog bu fàdduwut yëpp mbir mu nekk ni mu ciy taxawee noonu nga ci def même bu teewee sax ñu war koo forcer mbir moo xamante ne munu cee wax te xam nga ne lii moo ci xaalam nga ne nga mbir mi nii laa koy doxale Eh, eh, yàlla mos na ko wax moom dafa am xekma mu ne bi du wax waaye li nga xalaat loolu lay wax say daal di fa la tolloon sëriñ bi du wax boo ko tamit li nga xalaat loolu lay def ndax loolu loolu mooy dem ba xam sëriñ bi bàyyi gërëm ko ci léppam benn leetar mi ngi koy wax ne ko euh, wa raditu ankum ridan tamman gërëm naa la ngërmande bu mat feneen sax lu mu naakaan ridan laa gërëm naa la gërëm boo xamante ne sañi du fété gannaaw muko ndax xamna ki deug deug kan la lu imam Cheikh di wax mu ne Baye dafa natou Seydi Ali ci côté bu nek daf ko natou ci côté bu nek ba xam ki kan la mu door ko wolu ci mbiram mi mu ne ko gërëm na la te sa tukki bi ngay dem nak ma ngi lay yëgal ne wa damintukum dhahaban wa iyaban ghaibatan wa huduran barran wa bahran wa jawan wa raditu an al alxaaj garba فقد لاحظته العناية ووفق للدخول من الباب وات البيوت من أبوابها mu ne ko sa tukki bii nga jëm nag tukki bi xaal boo ko mën a tukkee rek mala garanti nga teew nga fàddu dégg nga nga nekk feek nga ñàkk fee nekk nga jaar ci jéeri ji nga jaar ci eh, nga jaar ci eh, bateau yi nga jaar ci avion yoon boo ci munti jaar daal yow jàppal ne maa garanti dara du xew te gërëm naa alaaji garba mi nekk ak yow tamit ba nga xamante ne eh, ndimbalu yàlla ak wutu yàlla xool na ko ba yàlla dimbale ko mu ñëwee ci ñun waaye jaar ci bunt bi na ko waatul buyuuta min abwaabiha yow yaay sama bunt yaay xalifa Cheikh Tijaani eh, booy topp leetar yi bàyyi di wax benn bu nekk rek doy na ci pour nga xam maqaama Seydi Ali waaye takraar ko it dafay neex ci ci ci ci xoli soppe lu bay doon wax ne eh, ukarriru eh, taslim alxabibi taladduda da nga ma fekk sama diwaan maa ngi nuyu yonent bi nuyu bu bari du pour dara waaye pour amee ci bànneex la man euh, lu waa ji waxoon ne euh, laylaaya min kunna am laylaaya min albashar billahi ya dabiyaati alqaayi qulna lana laylaaya min kunna am laylaaya min albashar xam nga tudd na laylaa tuddaat ko du pour dara waaye loolu pour talazuz la rek ñi jàng balaaxa ñoo ñoo gën a xam loolu kon euh, Mawlana Cheikh Ibrahim lii lenn la ci tolluwaay Seydi Ali ci moom tolluwaay la boo xam ne nag kenn mënu koo natt mu óolu ko dénk ko jumaam waaye dénk ko njabootam gis naa ko leetar bu koy wax ne ko fa awlaadi talaamidatuka sama doom yëpp say taalibe lañ kon bu leen bàyyi seen mbir na koy saytu di xool ci liñ nekk li ñu war ndax man yàlla e, teg na ma yoo xamante ne aw ma jot kon yow bu leen sàgganee yow yaa leen war a yar te ñim ci war a jàngal jàngal na leen ñim ci war a tarbiya tarbiya na leen ah, xamal leen ba nga xam ne bàyyi ba nga fiy jugee nee na doom yi na ni ngeen nekkoon ak man na ngeen continuer nekk ak Seydi ndax gannaaw yàlla amul ku ma dénk sama njaboot ku dut sama taalibe bii nga xamante ne gërëm naa ko muy Mawlana Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu xam nga nit ku la gërëm ci léppam mooy ne yow da ngaa matee li nga doon dénk ko jumaam bi muy muy muy muy ilimaan bi ci gannaaw dénk ko xam-xam bi muy jàngale lu mënta def soxla bu nga xamante ne Oustaz Brahima Diop ne na weeru koor bu jotaan bàyyi dafay tëju sëriñ bi dafa tëju ngir jàng téere yàlla bi jàngalaat leen ko ku am soxla na ko wax ak sëriñ Aliou sëriñ Aliou bu ko mënta faj sëriñ Aliou moom dana wax ak moom ak moom sëriñ bi nga xam ne lépp lu jaar ci loxo Seydi Aliou rek moom am na ci am na ci xel mu dal te wax na bés ne Seydi Aliou faala waajibahu ak aksar Seydi Ali li mu warlu woon sama digganteeg moom def na ko ba mu mat mu yokk ci sax yoo xamante ne bokk ci rabaat may dem nañ ba jamono bàyyi na ko noppalee ñu sa jëmm ji liggéey tool bu amatee bul mu ne waaye terewut ba naaw bàyyi sax ooteel nañ Alaaji Abdoulaye tool Seydi Ali dem boo fekk na mage na waaye mu ne mi ngi toog ci ron garab bi lu ñu war a def rek dañ ko indil wàllam ci tool bi mu toog ci ci ron garab bi di xidma eh, di toog ci ron garab bi di xidma ko ko xam na luy njëriñu xidma waaye xam na luy euh, naka la ñuy toppee sëriñ te loolu lépp moom def na ko texe nettali bi ñu koy nettali mooy ñun ñu góorgóorlu ba xam nan lañ ko war a defee ngir ngir texe ndax ñii moom luñ luñ luñ dexaloon ak yàlla ñoom matal nañ ko ba mat ñun ñu nekk seen seen gannaaw nag ñooy jàngee ci ñoom moo tax Oustaz Barham ñangi dana wax ci xasidaam bu neex di ko tagg euh, di wax ne دي وقت سيد علينا والخادم الأرض الذي ما ساء قط وما أتاه من المقام ملام موي ليجي كات بين جنا جرام بين خمانتني مسنيا والمكتي دي رابي مي ليجي ويا مقام باي بمسكو يد بنيون وما أتاه من المقام ملام ولسبقه في السابقين أدلة لوضوحها عنها السكوت كلام من سيدي علي الروب مرو كنن كل من لير لير بو خمانتني نوبيكو سوا هيكولا noppi ci du tax ñi xam ne wax la euh, nisaar waxoon na ne euh, wasamtu fi xaramil jamali jamalu euh, xormaay taar daal taar fu mu dem ba dajaloo foofu noppi fa sax mellal taar googu la bàyyi dénk ko lépp mag ñu àndoon ak bàyyi ku nekk yàlla teel laa wan kii maqaamam lan la sa baam joob ñëpp dégg nañ ko mu ne te ne bàyyam ñaanoon na Seydi Ali ndax xam na kii li mu war a doon ëllëg te moom du ko fi fekk baawaat nee na Serigne Mbaye mos naa toog bés ne ñaanal Seydi Ali ñett te bàyyi ngi toog ko la yàlla may wërsëg yal na yàlla may wér-gu-yaram yal yàlla may gudd fan lu tax mu ñaan ko kii li mu war a eno ñett yi bu dajowut ci moom du ko mën a eno mooy ne ñi ñëpp ñi ngi woon ak moom waaye xamoon nañ kii lim doon te Mouhamed El Misri ngeen xam ne ñëpp même wax jooju wax na ko bind na Seydi Ali leetar باش بشبير لا منك اعتقاد الكاتب فيك يا سيدي علي أنك أكبر خلفاء الشيخ من الأزل إلى الأبد من يسمى قم قم بما فصم خل تيو ما ينبولم خليفة باي لكو دليتي أزل بأبد وياتي قنا مقا منك وسبب اعتقادي لذلك وسبب اعتقادي لذلك كلام الشيخ فيك وصدقك فيه ومحبتك له ومحبتك لأصحابه محمد البشري عم بشراه mu ne ko lu tax ma wax loolu nag mooy yi bàyyi di wax ci yow yi bàyyi di wax ci yow ak dëggu bi nga am ci baay ak mbëggeel bi nga ëmbal baay ak mbëggeel bi nga ëmbal mbooleem topp baay moo tax ma xam ne yow dëgg-dëgg mbooleem xalifa bàyyi bi ñu dajaloon tamit yow yaa nekk seen kaw loolu kenn mënu ci dara loolu loolu lu yàlla def la ba pare sëñ yaxaali nettali na sëriñ bi mu ne ko sa baay xaw ma ko ci bari jëflante waaye nu sëñ bi itteewoo mbiram laa ko xamee sëñ bi itteewoo mu itteewoo mbiram laa ko xamee bàyyi yar ko mu xam mu may ko doomam bu mag ba pare ñaan ci bépp bépp barke pour yàlla amal ko ci euh, wax na bàyyi benn leetar wax na mi ne sama doom bu mag Faatumata Zahra may naa ko Seydi Ali Cissé maa ngi ko ko may ngir yàlla rek agi yenentu sallallahu alayhi wa sallam ba pare def sëy boobu muy addiye ñeel yàlla ak yenentu sallallahu alayhi wa sallam ak ngir barkeeloo seen ñaari turandoor yi ñoom ñaar te gis na benn lettre yi wax si xaari ne ko damaa bëgg Fatima Zahra ak jëkkëram nga ñaanal ma ñi am ñoom ñaar ci lépp njaboot gu barke bu bëri boo xamante ne dañ gis barke boobu óolu ko may ko te wax ci moom rek da nga dégg li muy wax mooy boroom xam-xam ndax moom moo ko jàngal xam na ne boroom xam-xam la boroom njub boroom ragal yàlla ba doy ko ci mbiram yi lu nekk mu teew ak mu ñàkk teew kon Seydi dafa judd rek ngir doon lim doon ni waaye ci buntu Mawlana euh, Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu euh, mu xam man am yar yare yar yare ci yoon yàlla boobu mu nekkoon ba nga xam ne mag ñëpp dañ ko wegoon ngir maqaama bi mu doon gis naa leetar boo xamante ni Cerno euh, Alxasan Dem Alxasan Dem moo ko ko bind gannaaw bu mu ko nuyoo ko salaamaaleykum wa rahmatullah ayyuha والشيخ الواصل الموصل الكامل آه، أبو الحسن علي سيسي ماندر جاي يمكن ماندر قال يجيب لو نكلة شيء مهم ما لي نيو مين خمن تنا سانغ بو أم تيرانغ بو أم تير دانغا آه، يوم مين خمن تنا ياي سرين بو يجي شيء يلا بو مات منا يجي له منا منا كو هذه بشارة رأيتها لكم البارحة آخر الليل آه. وهي جماعة مفيدة وشيخنا الحاج إبراهيم في وسطها فنزل نور عظيم وضياء مبين فقال الشيخ هذا النور لا يطيق به ولا يحمله إلا سيدي علي سيسي فقيل فإن هذا فإن هذا النور هو نور هو نور الزيادة والترقي على الدوام الرؤيا مونيكو ne ko ديم سي غودي ني نيك سي nekk ci mbooloo mu mag sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi ci biir mbooloo bi ci digg bi taxaw leer wu mag jugee asamaan war a daanu mu ne bàyyi taxaw ne leer wi kenn rek ko attan kenn rek ko mën a enu mooy Seydi Ali Cissé mu ne Ceerno ne ko ma dégg ci biir gént gi ñu ne leer bi mooy leeru yokkute ak yëkkatiku ba faw mu ne ko loolu mooy gént bi moom na nag mu koy firil ne ko gént bi ma firee ko ne ma firee ko Cheikh Tidiane ndax guddi bu Cheikh Tidiane fukki fan ñaar ci muharram bu mu jot maqaamam ci guddi googu laa gént gént gi te li ma ko firee mooy ne yow sa jamono dangay mel ni Cheikh Tidiane si jamono yokkute bi nag li muy firi mooy ne maqaama bi nga taxaw da ci am jàppandal lool ziyaada bi taraqi bi nag mooy ne sa mbir yi moom heure bu nekk dafay barke dafay gën a yokk te te te te loolu dem na ba leer euh, moo waral bàyyi gannaawam mu dénk ko euh, xilaafaam dénk ko njaboot gi dénk ko taalibe yi mu continuer ni bàyyi bëggoon ci moom ni mu xamee woon li bàyyi bëgg ci mbiram yi ba muy moom fii teew ak jëm ak zahiram bi moom mu continuer di di di doxal lool yar taalibe waaye nit ku nekk mi ngi xool xaal boo nekk mu xool miy def ba nga jugee ci xaal boobu dem di buur buurloo itte ni ñi euh, ba dina saydaa def dama wax ne itte bu la yóbbuwut ci yàlla rek ngelaw buy naaw la ci air bi amul benn njëriñ pour nit ñi am itte mu ne mi ngi leen doon wax ci ñu góorgóorlu ci xidma mu ne daan na leen wax sax bëgg na gudd fan ba ëllëg ma xool ni ngeen di dundee ndax xam ne li ñu war a am ci seen xidma lañ koy amee te oustaz euh, Moustapha Guèye euh, oustaz euh, Hadj mar Guèye wax na ne Seydi Ali ne na ko benn yoon laa Moussa mooy ndigalu Baye te dégg nañ ko ci oustaz Barham Diop mu nettali ko sëriñ bi ne nañu ko mooy ne Baye def ko wax ne ko gis naa itte yi nga nekk ngir suñu liggéey jaratul ngay sonn pour uti dépense sa de ko jëlee ci sama alal mu ne boobu la musa mooy ndigalu Baye. Euh, mu ne ko mu tegal ko ne ko maa ngi lay digal ne bul bokk ci ñuy dundee sëriñ si sa dépense bul ko wéer ci sëriñ bi ndax sëriñ bi dafay jugee bés wéer ko ci barke sëriñ bi ndax barke sëriñ bi dafay mos a jugee di soññ nit ci liggéey abaat nee na na wax ne am am soxla faj ko bu dee jaamu yàlla moo koy maye jar na yàlla ba dee bu dee bu dee bu euh, liggéey moo koy maye liggéey ba dee di jàngal nit ñi naka lañu ñu war a toppee bàyyi mu ne kuy topp sëriñ danga ko war a bëgg gëm ko dëggu euh, bëgg gëm dëgg ànd te bañ a yokkat xam ne boo ko defee du ñi sëriñ bi dara day ko ne nekk lim doon waaye yow doo jëriñu ci sëriñ bi loolu lépp wax la yu mu doon wax yàlla mayoon ko kashfu mayoon ko ci euh, lépp lu baax daal loo ne mi ngi ci Seydi Ali même bu dee ba nga koy wax xamoo ne mi ngi ci moom sax mi ngi ci moom ndax yàllaa ko yàllaa dajale baax baax yooyu ci moom euh, yàllaa ko dajale lool bëri na ñu jaar ci yoon wi waaye ñi sax rek ñoo jot seen seen càkkuteef li kullin ila chawil ula xarakaatu walakin qalilun fi rijali sabatu ñu neew a sax moo tax ñi sax ñëpp jël nañ seen seen eh, seen seen jot nañ seen càkkuteef ba nga xam ne ay taalibeem sax dem nañ ba yegg ci tasaruf te baay wax na kenn ci doom yi bés ne ko mbaa xam nga ne Seydi Ali yegg na ci maqaama tasaruf soppandiku ci yàlla lu mu bëgg lu mu bëgg amal rek yàlla amal ko yàlla amal ko Euh, te Oustaz Babaat nettali na moom sax ànd naag Seydi Ali dugg ci oto ñu dem koo caareer ci benn dëkk ci weti Tamba mu ne ñu toog benn oto traversé leen mu ne ah ku moom oto bi ñu ne ko oto bi mooy oto labbe bu ci dëkk bi ci kanam mu ne oto labbe ak uh, romb Seydi Ali yàlla teel ma oto bi mu ne fi muy waxee loolu la oto bi wàcc ñoom ñi dem bay tasarruf ci maqaama ci maxama Seydi Ali yàlla mayoon ko kashfu lool sëñ Omar Gueye nee na gannaaw bu bàyyi euh, Seydi Ali jugee France faju mu jugee Nigéria ñëw di ko seet si ba ñëwee dugg nuyu ko rek Seydi Ali ne ko ah euh, ku feebar de yenn saa yi dafa mel ni day gis lu bokkut ak li am man sànq rek damaa gis ne yaa ngi fiy ñëw te yére bu jaune nga son mu ne ko noonu la demee yére bu jaune laa soloon damaa ñëw ba fii ma soppi ko door a dugg te dem na ba feebar sax nekk France di faju mu xëy di laaj Maam Xasan ne ko ana diw mu fi toogoon tuddal ko benn tur ko xam ne ne wëllëreem la woon Euh, ne Imam Xasan defe na dulóori feebar bi moo koy waxloo rek mu ne ko déedéet diw sama xarit la ci marché Kaolack démb li ñu may opéré yëpp yàlla daf maa tegal jëmm bi fi mooy wétali nga xam ne ñi yegg nañ lu wax ci bàyyi ne wasir naa min baadihi ka shumuusi ay euh, keno leer yoo xamante ne euh, ku leen jublu xam ku leen jublu denc lëndam te loolu lépp yaru Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko def ci moom kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ci barkeem euh, taas ñu si euh, ñi yàgg jëriñoo ci barkeem mag ci xam-xamam ci ay leeram waaye mu yàgg nekk suñ euh, royteef ci ci buntu taalibe lim doonaloon Cheikh Ibrahim loolu loolu loolu loolu benn toogaay mënu koo leeral ndax ay at yu bëri la yoo xamante ne bàyyi lim ci wax rek mooy ne mosu see def lu ma naqadi mu ne li li li li li li cheikh eh, li yonente boo xam seydina aboubacar laay wax ci moom ba yàgg buy tukki sax bàyyi di wax ne ziaratuhu taqumu maqaama ziarati ziare Seydi Ali dafay taxaw ci barab bi ziare ma man teddal ko teral ko dafa mel ni teral ma ndax xalifa la ci xalifaay cheikh Tidiane yi góor la ci góor yàlla yi ba nañ sax xisa bu reelu ne bàyyi mos naa tukki yàgg ñëw am ku ne ko xe bàyyi Sëriñ Ali mun a dëkk bi yëpp fi mu ne bu ngeen doon voté sax mu gagné la bàyyi na man sax moom lay voté xam ne dëgg-dëgg kii bëggoon na ko euh, waaye moom mbëggee la moom moom moo ko jëriñ ndax mahabatu sagiri laa tuxte waaye wa mahabatul kabir al mutaali laa tuxte euh, yàlla nañ yàlla may ci jagle googu cër bu law euh, yàlla may ñi ñëw ci ziyaare bi ci ay gan yàlla indi leen ci jàmm ñi delluwaat ci jàmm ñi am fu la tamit seeni soxla yéene ñi ngi ziyaare wàllu nga xam ne ku nekk fi nga déparé ba fi ba fi ngay yegsee lépp ay tiyaaba la lu ñu lay bindal ba di ngay delluwaatee sa lépp ay tiyaaba la waaye lépp ay faj ak aajo la te amul kenn kuy tawasul ci barke Seydi Ali ànd ak dëgg lu ne sa aajo bi dana faju loolu moom amul benn sikk yal nañ yàlla dimbale eh, ñi yàgg yàggoo teewee at yu bëri yaara bi ànd ak tawfiq ànd ak yokkute ci zaahir ci baatin yàlla sàmm ñu ci gëm yàlla ak ci topp barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan